di gunal day garam di way ak sant si ñépp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara bégal nga àddina wóor na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara waaw ñu ngi lay nuyu di bon man ñu ngi may wooye Pape na Mbaye maay président Nioro assistance médical benn mbooloo ma nga xam ne dafa dajale ay agent de santé yu département bi ñi nga xam ne dañuy yëngu si département de Nioro doon doomu département bi yëngu si wàllu santé ñoom ñoo boole kuréel bi dañoo baaxoo nag at bu jot ñu ngi ñëw fii màggal Porokhane parce que naa ni depuis dañ fi ñëw chaque année pour jéem a xool nan la participer si côté médical jël wut suñuy garab ak ngeen suñuy benn personnel ñëw assurer benn consultation bi waaw loolu daal mooy. ba amu leen ay problème garab yooyu ay médicament am na yenn médicament yu manqué waaw. parce que surtout médicament urgence urgence yi moom xaw naa manque lenn kay moo ko xaw a kii ndax boole nañu benn ambulance yenn urgence yi buñ ko amee dañ koy dañ koy dugal ci ambulance yi mu yóbbu ko directement si kii bi si si hôpital bi ñoom ñu jël ko en charge foofu mais yenn ay comprimé mais médicament injectable daal moom lañ manqué fii waaw si côté boobu daal foofu daal lañ am problème buñ ko amoon nag dinañ ko mën a jël en charge fii ak médicament aussi si wàllu xale. ndax dañ fi am yenn xale yi dañuy obligé bu ñoom aussi ne leen ñu dem si hôpital bi tey te day nekk cas ya nga xam ne bu ñu amoon garab yi mën nañ ko jël en charge fii waaw ci côté jafe-jafe médicament daal foofu lañ ci am. waaw am na am na fi ña nga xam ne bëri nañ fi ña nga dañuy daanu da ngay toog nii rek seen leen ñu daan léegi da nga jël jéegal leen si biir waaw ñii ay biir bi métti ñii ay miir waaw yooyu ka yooyu daal lañ fa am ah bon man nag personnellement man fii laa dëkk man moom Porokhane laa dëkk mais pour màggal gi moom ça fait cinq ans ngi nii chaque at at bu jot ñu ngi fi ñëw waaw bii mooy suñu cinquième édition daal. waaw kàddu yi pour gën a ñu gën ñoo jàppale rek xam ne ñun ay ndaw leen nekk si yoon bu ñu demee ba am pas-pas bi taxawal lii ñëw ne kenn du kenn moo ñu ko forcé du kenn moo ñu ko xalaatal suñu décision bopp la ne dañuy ñëw si màggal gi jàppale nit ñi si côté médical. comme que yàlla dimbali nañu ba ñu ngi ci domaine boobu message bu ñuy jàll daal mooy ñu gën ñoo jàppale si médicament yi parce que médicament yi nañ na doyul ba ñu ci bëri sax dañ leen jox astut conseil leen après bu ñu defee ay une yooyu ñu dem delluwaat hôpital waaw médicament yi daal bu gënoon a bëri ñu gën see am médicament urgence parce que man nañ ne bu dee genre événement yi garabu urgence nga gën a soxla daal waaw si côté boobu daal loolu daal la amoon lu ñu ciy jàppale ñu gën ñoo jàppale si côté boobu waaw loolu daal lañ ci kii amoon lu ma siy wax incha allah ah ñun Nioro assistance médicale waaw Nioro assistance médicale mooy moo regroupé agent de santé département bu Nioro ñun ñun Dakar lañ jógee nii ay étudiants leen ay étudiants ak ay médecins ñoo ko constitué mais ñun bu Dakar lañ nekk foofu lañ déparé ñëw fii ok jërëjëf merci. di ko nal day garam di way ak sant soxna si ñëpp xam ñu naan soxna jaara soxna jaara nga àddina wóor na yaa nu jox say xi bamba jaara ma jaara jaaratullahi mooy turam wañu tan jaamu yàlla ak léegi ko may soxna jaara